Denis Ndour maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay di rafetlu euh, invitation bi. voilà nga nekk vice-président bu Ligue sénégalaise des droits humains et spécialiste en droits humains ak professeur de sciences sociale 10 décembre bi ñuy màggal bés bu ñu jagleel ak ak yelleefu doomu aadama euh, ci àdduna bi yëpp lan mooy importance su journée bi. waaw journée boobu nag pour man bés bu am solo la. parce que nit ki moom. balaa nga koy mën a naw rek mooy nga ne respecté nga dignité parce que loolu mooy def li ñuy wax nitee fam ah, parce que nit dañ koy euh, dañ koy comparer ak mala euh, mala nag bo du réfléchir am na loo xamante ne gisuñu ko ci ma même bu fekkee sax am na àq boo ko war a jox waaye nit moom yàlla moo ko tànnal boppam sàkkal ko boppam jox ko orma euh, boobu nag dañ ko war a sargal dañ ko war a respecté ba tax na euh, bu ñu wax ak ak doomu aadama wunduwul dara lu dul rek nit ki ñu jox ko respectel ko dignité am parce que dañuy ne di dignité fu mu dañ rek daanaka yow dafa mel ni nekkatoo euh, euh, doomu aadama lu tax ñi koy màggal na c'est parce que day day am solo ñu def taxaw seetlu ci àdduna si ci Afrique ci Afrique sowu jant ak ci Sénégal Euh, naka la àq yi doomu aadama di doxee ndax ñu koy respecté lan moo si sooxe ndax dañ ko war a jubbantee euh, di def référence nag euh, déclaration universelle des droits de l'homme de mille neuf cent quarante nga xamante ne moom la réew ci mbootaayu xeet yi di Nations Unies bokk te nangu ne lii mooy li nga xamante ne mooy ak yelleefu doomu aadama yi ñu war a fësal ci suñu réew Ah, loolu nag buñ koy càmbar dina am loo xamante ne fii ci Sénégal ah lu ñu war a xoolaat la ma jël ci exemple yu ndaw rek bu ñu jëlee lu jëm ci ah, ah, la liberté d'expression maanaam nit ki moom boppam wax lu mu xalaat fësal ko ci bind fësal ko ci. nita ci ci ay nitaal wala ay ay ay ay misaal yi mu doon ci woy ak yeneen wala mu def ay manifestation yaa xam syndicat nga bokk wala ci parti politique wala société civile wala sax nga doon étudiant a ah, loolu dafa xaw a sooxe parce que gis nañ ne ah ci euh, fan yi ñu wees wala bokk ci weer yi ñu wees bëri na ay ñuy tëj dëgg la nag réew day day doxee ci yoon nekkul ne nit ku ne lu la neex ngay def euh, te voilà dañ la ci war a bàyyi déedéet li ngay def da nga ko war a teg ci yoon maanaam warul saafaanoo ak li nga xam ne moom la loi wax waaye damay faral di fàttali ne loi buñ koy buñ koy bind aussi du rek ñu respecté ko à la lettre waaye dañu war a xool aussi l'esprit maanaam lan moo sooke woon ñu tax ñu bind euh, loi te bu ñu fàttali loi yi ah ci assemblée nationale la jaar te ña fa toogal ñoom ñooy gis ni lii kat lu war la ñu war ko jàpp comme comme loi donc bu ñuy xool loolu jàpp naa ne mbiru liberté d'expression lu Sénégal war a gën a liggéey la lu tax parce que dafa am kuréel bu ñuy wax conseil des droits humains bu Nations Unies bi nga xamante ne moom mooy càmbar ñëpp dëkk yëpp ci mbiru ak yelleef doomu aadama ñun Sénégal dañoo perte suñu statut A euh, bi fi nguur gi nekkee ba léegi a loolu mooy nag Euh, message la pour wax nguur gi war nañuy jéem a def tout ba balaa ñu fi jóge sax ñu delloo siwaat ñu suñu statut bi ñu amoon euh, pour ñu mën ñu compter ci dëkk yooyu nga ne dañuy jàpp na ñii ñu ngi respecté ak ak yelleefu doomu aadama du ma ne nag dara baaxu fi wala lépp lépp ñuul déedéet. Mm-hmm. am na fi ay ay jéego yu ñu fi def ci mbirum ak ak yelleefu doomu aadama ci. euh, droit des enfants respect des droits des femmes euh, waaye daal bëri na lu bëri lu ñu war a defaat ci ci yooyu ma tudd léegi parce que gis nañu xale yi ci mbedd mi gis nañu lépp lu ñuy wax ci mbirum euh, ni ñuy salfaañi ak ak yelleefu euh, jigéen ñi di leen xooqatal di leen abuser donc yooyu yu ñu war a jéem xoolaat la waaye itam arrêté Ousmane Ngom daf fi nekk ba léegi maanaam tey amuloo sañ-sañ nga dem ville di fa manifester ñu la neexee wala ngay def ay réunion politique loolu dañ koy tere te te loolu sañ-sañ la parce que dañu ne nit ki buy dund ci démocratie am na sañ-sañu euh, regroupé wu li ñu lay ñaan daal mooy waroo saaga te waroo def loo xam ne dafa safaanoo ak li li yoon wax waaye ñun ñi nekk di yëngu ci ak ak yelleefu doomu aadama sax euh, attaqué woon nañ arrêté boobu ba euh, cour bu CEDEAO di tribunal bi nekk Afrique sow jant gën a mag suñu tribunal yi ah joxoon nañu ndam ne Sénégal dafa war a dindi loolu waaye ba léegi décision de justice bi Sénégal jot na ko waaye defagu ko donc loolu yëpp day wone ne ban esprit la ñu am pour respecter ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal donc euh, mbir mi daal mi ngi noonu li ñu war a jubbanteeg li ñu war a def ci ak yelleefu doomu aadama bëri na waaye jàpp nañ ne pour ñun processus la. maanaam du doon loo xam ne day ñëw rek lépp sotti moo tax du suñu toll si suñu liggéey dañuy continuer di ñaax euh, euh, nguur gi ci ay bataaxal ci ay lettres yoo xamante ne dañ koy fàttali ci yenn loi yi bu ma jëlee loi bu mel ni loi sur le terrorisme balaa ñu ko doon voté ñun dundoon nañ président di ko ne ah attention ci loi bi léegi lii mun a jur parce que niñ ko bi niñ ko bindee nii euh, dafay xaw a mel ni lu salfaañe un peu ak yelleef doomu aadama donc loolu yëpp dañ ko war a xoolaat parce que suñ code pénal réglé woon na problème boobu ba pare donc bu ñëwee di ko jëlaat di ko bindewaat neneen noo xam ne dafa mel ni dañu cible ay nit loolu dafay xaw a doy waar te damay faral di fàttali ne nag jàmm nag ci la lépp xaj te jàmm moo gën loo mën ci gis ci àdduna ah, Sénégal nag dañ ko mës a naw ci mbirum dëkk bu jàmm dëkk bu dal Euh, waaye gis nañu fitna daal mu ngi bëgg a bëri ci ci ci réew mi ci ni ñi ni ñuy doxale surtout li ñuy gis arrestation yu bëri euh, seen naataango boobu di Pape Alé ñu jàpp ko fii ñu bëri ñu yëngu si ñu ñu se waxoon ci bi ñu def ci ay communiqué euh, rawatina ñëpp ñu ñu jàpp ñu ne parce que pas des raisons politiques la mën a wax loolu defe naa lu ñu war a mën a jubanti la aussi pour que dal ak jàmm gën a mën a sax biir Sénégal et eh, ñu mën a gën gis ne ah li ñuy wundu ci ak yelleefu doomu aadama mu ngi dëppoo ak li ñuy wax aussi ndeyu sàttu réew mi. waaw yow tey jii Denis Ndour boo waroon noté euh, Macky Sall nguuru Macky Sall wala Macky Sall ci boppam euh, ci wàllum trois euh, droits ban note nga koy jox. waaw note bi ma koy jox rek mooy note bi nga xamante ne mooy kuréel bi ñuy wax conseil Euh, les droits humains bu euh, Nations Unies di kuréel bi boot mbootaayu xeet yi di mbootaayu xeet yi ah, boobu rek laa laay laay fësalaat maanaam suñu statut bi ñu ñàkk parce que ñàkk doxalinu ak ak yelleefu doomu aadama nu ware ci régime am la commencé ci lañ ko ñàkk donc bu mënee def ba ñuy jotaat ko loolu mooy wane ne ah kon moom note boobu changé na lot boobu nag. li ma ciy gënoon a fësal mooy li ñu war a njëkk xoolaat mooy le comité des droits humains dañu war a fexe ba ñu am commission des droits humains boo xam ne dañ koy yaatal mu am ay mu am benn une certaine indépendance ba mu bañ a doon un comité boo xam ne day mel ni dafa xaw bootu ci nguur gi ba am na yoo xam ne du ko ñemee wax wala yenn réforme yi du ci ñemee dugg ah donc loolu mooy mën a tax déjà ñu mën a am statut boobu mën a changer mbir yi beneen bi mooy ah nañu fexe aussi ba def li ñu naan juge de liberté ah ni ko ci assises nationales yi euh, euh, waxee woon juge de liberté mooy juge boo xamante ne du far fenn moom day fexe ba yow bu ñu la jàppee duñ la gaaw patam patamee tëj la dina bàyyi la foofu di xaar say mbir ah, ngay feebar rek wala leneen rek leneen waaye dañuy xool nag yow ñu laa bàyyi nga nekk ci sa njaboot. te continuer di def enquête ba gis euh, loolu lan la war a jur suba donc juge de liberté boobu pour man bokk na ci li mun a jubbante ci mbiru ak yelleefu doomu aadama te aussi ñuy ñuy yombalal nit ñi nga xam ne dañu bëgg a manifester seen droit euh, ñu encadrer leen tey booy xool chaque fois. bu nguur soxlaa génnee des forces de l'ordre pour encadrer moom la mu bëgg encadrer day am le le nombre suffisant pour le faire le matériel pour le faire et pourquoi pas nag nit bu bëggee manifester wala kuréel bu bëggee manifester loolu mu génne woon mu génne waat ko pour encadrer manifester boobu ba nga xamante ne dootul nekk ci loo xamante ne day andi ay réeróo parce que mbir du damay ñaan permission mbir mi dama la donc loolu lañ ko loolu ndey charte mi loolu la wax donc defe naa yooyu daal bu ñu ko defee dinañ gën a gis àq ah, ak yelleefu doomu aadama gën a jëm kanam biir Sénégal. Euh, Denis Ndour euh, ñu gis ni fan yi euh, ñu ngi arrêté ñoo xam ne ci Pastef la ñu bokk arrestation yi nag bari trop euh, ñenn ñi jàpp ni sax dafa jéggi dayoo est-ce que yow jàpp nga ni ban analyse ngay def ci arrestation wu militant wu Pastef yu yu bari yi nga xam ne fan yi mi ngi am. ñu bokk ci Sonko li ma ciy wax rek mooy que ne saa bu ñu waxee arrestation arbitraire wala mu bëri euh, wala mu nekk benn parti bu ñu ciblé euh, loolu dañuy xoolaat le fond du dossier maanaam ku ci ne lan moo tax ñu ñu ñu ñu arrêté la euh, li ñuy wax rek dossier bu dugg ci tribunal ba ñu ubbi ko duñ mën a dugg ci duñ ci mën a xóotal ci fond bi mais ñun la ñu xool mooy la forme parce que lépp loo gis rek. jamaana ba nga koy def te dañuy xool ne souvent élection buy jege si yu ni mel day xaw di bëri te loolu day teeloo xel askan wi xam nga justice moom tant que askan wi ñu ngi am kóolute di am di bañ am ñaaw njort ci ni muy doxee rek loolu mooy justice boobu mu ngi dox may fàttali nag jàmm justice moo ko lal euh, injustice fu mu am rek xamal ne conflit mu ngi nelaw fitna te fitna nag wax dëgg yàlla kenn bëggu ko te waruñu ko yee parce que Sénégal lañ ko mus a xamee ci jàmm ah, ak dëkk bu dal donc ci loolu la ñu war a wéy. Euh, tamit ma laaj la si euh, éventuelle troisième candidature bu bu Macky Sall ñu bëri di ko laam-laamee euh, yow ban jàngan nga ci am ak tamit kuréel gi nga nekk ban position ngeen am si jamais Macky Sall bëgg a sampaar ndëndëm en deux mille vingt quatre. bu dee kuréel bi damay wax position de principe dañu war di respecter Euh, euh, li nga xamante ne mooy éthique ak déontologie euh, mooy lan kàddu parole donnée du mën na xuus personnellement ci mbiru droit parce que dama naan le droit est fait pour être interprété certes mais si on ne regarde pas l'esprit c'est qu'on fausse déjà cette interprétation la donc mooy lan su fekkee da nga bëgg yow interpréter sa manière ci li nga bëgg sa bëgg-bëgg bopp boobu da nga koy interpréter ci anam boo xamante ne daal du c'est pas objectif te loolu la ñu gis ci ci penc bi waaye xam nañu ne l'esprit lan moo taxoon ñu tëgg loi bi ñu ne kenn mënta am ñaari mandat lu ëpp ñaari mandat mooy que ne euh, président bu fi xasa waat ñaari yoon ci kanamu sénégalais mooy def nga ñaari mandat ndax boo mandat rek mooy waat nga ci kanamu sénégalais yi soo waatee ñaari yoon nag mooy waat nga ñaari yoon ba pare ndax ñaar laa ñett laa juróom loolu amatul soo li am solo mooy waat nga ñaari yoon ba pare waaye li ma ciy wax mooy li ci gën a am solo mooy ñun lan la ñuy jàngal suñu doom yi ak suñu sët yi ndax tey kilifa bu taxaw wax dara suba mu ne maa wax waxet ndax loolu dañ ko war a jàngal suñu doom yi ndax loolu euh, valeur la loolu du valeur loolu contre valeur la te yaakaar naa ne président de la république moom mi nga xamante ne moo nekk président de l'union africaine di war wane exemple yeneen dëkk Afrique yëpp moom war na wane ne man kat sama dëkk maa ngi koy teg ci yoon te maa ngi respecté éthique déontologie di ne di respecté kaddu pour que euh, yeneen dëkk yi mën a ne ah yow boo ñuy ci lii dañ ciy d'accord parce que sa dëkk loolu nga wane waaye ba léegi ñu ngi koy déglu te pourtant waxagu ci bu ñu sañoon nag da ciy wax te doon te loolu doon doon buntam bu bu bu am solo. ci génnam parce que aussi euh, euh, booy jiitee réew da nga war a xalaat ne man dama mën a andi waaye keneen mën na andi xëy na keneen li muy andi day complété li ma andi woon man dama jàpp sax ne suñu réew yi léegi. Mhm. Euh, le fait que ñuy def ay deuxième manda di ko def ci ay constitution sax dañ ko war a dépasser def rek benn manda unique de sept ans mandat unique de sept ans mooy lan juróom-ñaari at nga fi mën a toog. soo paree nga abal sa morom parce que bu la loolee ne la wóoree ne benn mandat ngay def du juróom-ñaari at doo fi nekk di def ay calcul ndax deux ans yi jiitu mooy nga def l'évaluation de la l'état des lieux maanaam li fi xew loo fi fekk loo war a ji bonti cinq ans yi ci def nag yi ci des juróomi at yi nga andi li nga war a andi boo koy xool dafa mel ni rek ñaari mandat wu États-Unis parce que ñaari mandat États-Unis ñaari quatre ans la Hmm. boo ko xoolee mooy juróom-ñetti at juróom-ñetti at ak juróom presque benn la rek. Hmm. donc man daal loolu laay loolu laay suggéré comme ça ñu mën a génn ci mbiru ay deuxième manda parce que boo ko xoolaatee ci Afrique de l'Ouest même boo ko defee tey suba nga di changé waat constitution bi ginnaaw suba nga changé waat. Hmm. donc au lieu ngay nekk fii di changé que changé waat nga ne gars yi benn mandat la rek ku ñëw boo nekkee doo ko nekkaat nga dem sa yoon te man jàpp naa ne président de la aussi ndaw la mun naa dem ba pare quelques années mu ñëwaat sampaat ndëndëm bu ko sénégalais yi wóoloo ñu voté laat ko waaye daal pour man ci éthique déontologie ci respect de la parole donnée ak li ñu war a jàngal suñu suñu doomi ak suñu sëti waratul présenter beneen candidat fii comme troisième candidature au Sénégal ndax lan parce que aussi bëgg na jàmm sax ci biir réew mi jàmm nag pour mu sax il faut ko nga sooke ko en amont maanaam doo bàyyi ba daay bi jog nga ne léegi damay wut jàmm ah loolu dam koy woowee médecin après la mort te dañ koy wax sax ci misaal ah magu waxoon naa ko de moo gën magu xamoon naa ko. voilà Denis Ndour euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. waaw ah, maa ngi leen di gërëm. may fàttali yow yaay vice-président bu Ligue sénégalaise des droits humains nekk spécialiste en droits humains professeur de sciences sociales.